jërëgéen jëf ci teewaay bi ci néegu borom bi subhaanahu wa taala ah. macha allah niñ koy faral di waxee weeru koor ni muy gën di demee rekk dañu war di gën a góor góorlu su dee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ñuy roy ndax kaana yejtahidu fi ramadana ma la yejtahidu fi gayrihi ويجتهد في العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره بكور دوغان جامو يالام لم دان باري باري بغا ياكار نه منو سي يوك su koor ñëwee dana ko yokk ba nga xam ne yokku na ko waaye buñ demaan ba muy waajee jeex itam jaamu gim doon def ci koor gi dana ko yokkaat di ko yokkaat ba nga xam ne yokk na ko ci mujj gi lu raw na mu ko doon defee ci tàmbali bi kon nañu continuer di teewee ci jàkka ji di feesal sàpp yi boole ko ak di noppi ndax néegu yàlla dafa laaj boo fi toogee nag nga ñaan yàlla mu kontaan ci yow bég ci yow defal la barke te loolu nag bokk na ci li la koy may na nga noppi nag kon ni ñuy wax ñoom nañu noppi hmm? xale yi bari nañ leen a encouragé ñiy teew si jàkka waaye ñëw nag bu nu ñëwee ñu rek noppi mbokk jullit ñi tey bu ñu laajoon ab laaj mbooleem li nekk ci kaw suuf Hmm? lan mooy loo xam ne du mbindeef nin mbindeef la asamaan mbindeef la suuf mbindeef la géej mbindeef la waaye lan moo nekk ci kaw suuf loo xam ne du mbindeef benn tontu rekk lañ mën a tontu tontu ba wér تمام موي القرآن الكريم نعم موي كلام الله غير المخلوق لا بارول انكري دالله سبحانه وتعالى ملوكان لكي ملوكان مي mbokk julli loolu moo lay wan rëyaayu alqur'an moo lay wan màggaayu alqur'an imam alghazali di wax ne lawla sitaaru كنه جلال كلامه بكسوة الحروف لما ثبت لسماع الكلام لا عرش ولا ثرى ولتلاشى ما بينهما من عظمة جبروتي لنك سكوسوف تدوم بنديف يالا ترى القلب أمول فكي أدم مكالك ولا نغني مكسخ لولو كيمان لا وايلو تخ لولو مونا جاباندي إمام الغزالي مونا سكري القرآن ak rëyaayam bi nga xam ne dépassé na nit ak kàttanam yàlla def ko ëmb si kimbeekaayu araf yiñ ko bindee wala araf yi ngay wax ci sa làmmeñ su tax doona kimbeekaayu araf yooyu mu ne alxuraan asamaan li muy rëy rëy rëy li muy am am am doole du ko attan waxuma la ak suuf mu ne ba ci arasu yàlla sax muy tróonam muy gàngunaayam attanul alquran imaamul Ghazali mu ne fañ ko denc ci lawhul mahfuz malaaka yépp bu ñu dajee ànd ngir yëkkati ci benn araf kese benn araf laa wax de malaaka yi dañuy ndetteerlu duñ ko mën duñ ko attan lu dul israfil mi yori mbirum ruuxu dugal ci loxoom mbooleem malaaka yi ak seen bëriwaay ak seenu rëyaay ñi doogay mën a attan benn araf allahu akbar imaamul qurtubi di wax ne fa innahu subhaana جعل في قلوب العباد من القوة على حمله ما جعل ليتدبروه وليعتبروا به وليتذكروا ما فيه من طاعته وأداء فرائضه لو لم يجعل فيها هذه القوة لضاع لتستعفر أو لتضعضعت ولن دكن ولن دكر أن تطيقه والله تبارك وتعالى يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله fa ayna quwatu alqulubi min quwati aljibal fa ayna xale bu am fukki at suñu mag ñi daan mokkal alquran hmm, di ko beqite duñu ko gis ci lu réye noonu mu ne yàlla mu jël sekkereem Hmm? courant am mu roof ko nit def ci prise prise boobu ci la nit mën a supporter alquran lu tax yàlla jagleen nit loolu parce que leetaru yàlla la message yàlla la waxu yàlla la bu mu war a jàng war koy xam war koy seetantal war koy jëfee ngir mu taxi adduna ak kon yàlla moo tax mu def ci moom kàttan gu mu manee loolu mu ne bu taxaloon ak kàttan googu xolu doomu aadama walla xelam lottu na gépp ak lottu ci mën a supporter lu toll ni alquran téere miracle bi nga xam ne tey mu ngi waar scientifique yu bari ñuy tuub dugg ci lislaam Maurice Bekaay mi binde la Bible le Coran et la science Tajata Tajason c'est un professeur thaïlandais bu tub ci l'islam Moore c'est un professeur américain du nu jeex kéemaanu téere boobu moo leen di jommal ñuy tuub doole jooju di gën di feeñ feeñ ci astronomie muy kaw asamaan fonc océanographie muy biir géej fer ci embryologie muy nit nan lay màggee ci biir ndeyam ak yépp ni mu feeñee ci fiq feeñee ko ci falsafa feeñee ko ci ilmu nafs muy psychologie ak yu dul jeex loolu kon dépassé na nit waaye yàlla moo def kàttan googu ci nit mu doog koy àttan ابن صلاح دي ان قراءه القران كرامه اكرم الله بها الانسان وقد ورد ان الملائكه لم يعطوا ذلك وانها حريصه على simaa'iha min al insaan lu toll noonu tërëyaay bi gis nañ ko naka la jommale scientifique yi mu ne teral la rek yàlla teral nit malaaka li muy foor foor mën na jàng alxuraan parce que wax naa la ne la fañ ko denc ci lawhul mahfuz malaaka yëpp mu ndajale woon yëkkati fa benn araf duñ ko mën lu dul israfil jàppale leen moo tax bu gisee nit kuy jàng alxuraan malaaka day jommi day waaru day kontaan loolu nag yàlla wàcce ko ci weer wi mu nekk xeetu tudd yàlla gi gën a màgg kon ku ci nekk war na ci xër ci giiru dundam rawatina weeru koor ku ko mënu doon nga fexe man ko parce que gis nga miris bëkkaay mi ma la wax sànq ki bind la bible la coran et la science médecin la chirurgien la dem ba nekk mag xam ne dafa war a jàng alxuraan mu dem jàngi arab man ko ba bind ci téere boobu yow nga ne jullit nga xamuloo dara ci alxuraan jéemuloo ko jàng amuloo lay amuloo lay nga jàngal ko sa njaboot boo koy jàng bu la yombee maa safaratil kiraamil barara yaa ngi ànd ak malaaka yu sell yu laab soo ko joxee akam waxuñ jàng rek dem de suve kene yombut la gacci sonnu di ci nat nati dañ lay bindal ñaari tiyaabo tiyaabo nat nati bi ak tiyaabo jàng bi kon mbokk julit bu nuy waxee tudd yàlla ci koor dara jiitu ca jàng alquran ba tax julit ñi dañ ci daan sonn ci jàng alquran ci naafeleeku daan nga gis ñu ko daan wàcc ñetti bis ci weeru koor am na ñu ko daan wàcc juróom-ñaari bis yu nekk loolu nekkoon seen aada mu nekkoon seeni i xisb mu nekkoon seen doxalin kon loolu jullit ñi war nañ koy delloo siwaat seen digganteeg alquran jamono ju nekk waaye saa su nekk waaye rawatina weeru koor mbokk jullit yi yàlla nañu yàlla defal euh, alquran nekk ci suñu suñu suñu suñu dund alquran di ñu teete alquran di ñu leeral alquran di ñu gindi adduna ak alaxira bokk ci ñi nga xam ne alquran dañu leen di رمول بس بنكي ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله